Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, this is the completion of the yesterday hadith. Babu صفة الحج ودخول مكة qaala fa dakara alxadiisa wa fiihi falamma kaana yowmu tarbiyati tawajjahu ila mina wa rakiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa salla biha alzuhra walasra walmagriba walcishaa walfajr summa makasa qalilan xata talacat alchamsu fa ajaaza xata ataa carafata fa wajada alqubbata qad duribat lahu binamira fa nazala biha xata ida zaagat alchamsu xata ida zaagat lchamsu amara bilqaswaayi fa ruxilat lahu fa ataa batna alwaadi fa xataba annaasa summa adana summa aqaama fa solla duhr summa aqaama fa solla alcasr walam yusalli baynahuma shay'a summa rakiba xata ata almawqifa فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى قاب حتى غاب القرص ودفع waqad shanaqa lil qaswa izzimaama xatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi wa yaqul bi yadihi al-yumna ayyuha nnaasu sakiinata sakiinata kullamaa ataa jabalan arqaalaha qaliilan xatta tascada xatta ataa al-muzdalifata fasallaa biha al-maghriba wal-cishaaa bi adaanin waaxidin wa iqaamatayni wa lam yusabbix baynahumaa shay'an ثم اتجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فانحر summa rakiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa afaada ila albeyti fa salla bi makkata zuhra rawahu muslimun mutawala yàlla The narrator reported the rest of the hadith, and it contains, when it was Yom Tarwiyah, they went towards Mina, And the Prophet وسلم, rode and prayed there, Azur, Al Asr, Al Maghrib, and Al Isha, and Al Fajr prayers. After that, he waited a little till the sun rose. Then he proceeded till he came to Arafah and found the tent had at Namira. There he dismounted, and when the sun passed the meridian, he ordered Al Qaswa to be brought, and when it was set for him, he went down into the valley and addressed the people. He then ordered the Iqamah pray Al Asr prayer without performing any voluntary prayer between the two. He then mounted his she camel and came to the place of standing, making the she camel on Qaswa turn its back to the rocks and having the path taken by those who went on foot in front of him. He faced the Qibla and remained standing until sunset, when the yellow light had somewhat gone and the disk of the sun had disappeared. He then went quickly pulling the halter of Al-Qaswa forcefully, so that its head was about to touch the front part of his saddle, gesturing with his right and saying, O oh, people, be tranquil, be tranquil. And whenever he happened to pass over an elevated tract of sand, he slightly loosened the halter so that it should climb up. When he came to Abu Zarifa, he prayed al Maghrib and al Isha prayers with one adhan and two Iqamah without performing any voluntary prayers between them. He then went down and prayed when the first moonlight was clear, he then went until he came to Al-Mashar al-Haram. He faced the Qibla, supplicated Allah, declared His greatness and His oneness, and kept standing till the daylight was very clear. He then ran quickly before the sun rose till he came to the valley of Muhassar. He hastened the sheikh a little and following the little road which comes out at the big jar till he came to the jar which is beside the tree. At a a pebble. and each pebble was as small as a chickpea. He threw them from the bottom of the valley, then went to the place of sacrifice and sacrificed. After that, Allah's messenger sallallahu alayhi wa sallam mounted and went quickly to the house, performed the waf, and prayed a long prayer in Mecca. Reported by Muslim through a long hadith. MashaAllah, Jazakumullah khairan. This hadith will be narrated also by Jabir ibn Abdullah It's a very, uh, yeah, it is Abdullah in Sahih Muslim. It's longer than this. Um, Yawm means the day the Hujjaj will go to Mina, the day 8 of the Hijjah. Uh, this is too long to be explained. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank